الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي الله الله بيته بمكة يوم الفتح وقت ضحائه الله الله الله الله يا الله وهل منعوا نشر الديانة دائما بكل بلاد الله طول بقائه وتسليم عليه بقدره وآل وأصحاب وأهل ولائي الله الله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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله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 bu doon ay baat rek sax ñu sànni ko ci jar na ko muy kan muy sidna muhammad salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima am na benn téere bu ñuy wax al mawahib laduniya am na ñaan bu ca benn waay jëlee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci yonent bi ne ko man dafa gis yonent bi ci gént ne ko man tey ñàkk ak may bugg a rey yonent bi ne ko yonent ñaan kii ma lay digal nga jàng ko boo ko taxoo rek léegi nga am alal ñaan gi mooy allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa hab lana allahumma min rizqika alxalaali altayibi المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان أين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله أعدائنا واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا تنقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين وادي جس جرت بوغو نينا جانغو مكو لما دوير لما يالا دفا ماي برام على كون يونت بي موي بنت لب موي بنت علال موي بنت خالص موي بنت لب يونت بوغو نك موي كان موي كيغا خامني مو نييو ci wéru rabiul awwal weeru weeru weeru rabi awal teroo rek gis nañ taalab yonent bi gën naat ca weeru rabi awal ñu gis ko mu leer nañ ak ci leeral ko moom leeral leeral boppam wax ne lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp daal mu ne weeru koor lu tax mu mel noonu lu tax du mel noonu weeru rabiu awal weeru gàmm lu tax du mel noonu ndax mooy weeru nga xam ne fii la ñu fàttali koo juddi juddóob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi dafay wax ne fàttali ko juddu yonent bi amul bés amul weer amul at amul waxtu waxtu wu nekk rek fenn gaa ngi dox ki rek war nay fàttali ko yonent bi may faral di nettali la ko a ak doomam na fi dafa ñëw ne ko tey dañuy gàmm ci place sàngam dama bëgg nga may ma paas ma dem ci gàmm bu mu ne ko doxal jàll ci àll bi da ngay daw jàll rek weeru gàmm passé na dañoo nekk ci weeru gàmm ba ngay dem ci gàmm mu ne ko ah bàyyi yoo leen jàngaloo bi noonu mu ne ko nu ma leen jàngal mu ne yaa ñu xamal ne yonent bi judd eh, màggal ko amul weer amul bés amul at waxtu woo ko màggalee rek moom la man waxuma ne dama lay jox pass nga dem waaye dama tàbbi ci saal bi ma solu ñu ànd mu ñëw ci gàmmu bi itam def li ñuy wax autocritique wane ne man yàlla may waxee ci sama làmmiñ ñu doom bu ma ne ko wax ne demal jàngi parce que weer euh, bi ngay bugg a dem gàmmu bi ngay dem bugg a dem weeru wi du weeru gàmmu mu mu ne ma ah bàyyi jàngaloo ñu loolu de mu ne ma laaj ko lu ma ko jàngal mu ne da ngaa wax ne yonent bi màggalam amul bés amul weer amul temps moo tax ma ñëw ci gàmmu gi pour fekkee si ko kon kooku mu ngi wax ne weeru yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne bég na ca sigira ca ba pare kontaan ca lépp loo xam ne ngëneel la dana ko ci am ci yomb dina muy am benn gar gar mu ne kon nag fahris na nga kër alayhi ci màggal nga buddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal bi wala taba bul faale li muntaqidin ci koo xam ne dafay diingat loola واستخدري نلا تولي وبنقي مقل الكاملة الموصوفة بالسير السير نلا تولي كمد كوكا كمد كوكا كرافة كوكا يا خمنا لب لي على بند مشلق يا خمنا ممسخ تولي بين بس دم واتو بقرة دالي di indil leen ma seetu ñu indil ko seetu mu xool boppam mu ne yow sama borom maa ngi sant parce que rafetal nga sama jikko ba rafetal sama xarkanam kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yi bu daan ci place bu lëndamee bu fa duggee dafay mel ne Aïchatu nee am na bés may sama puso ci boori timis puso bi wàdd ma ma seet ma dem ut dem uti niitee ko pousse ba pour waaye bi yonent bi ne ne bu mel ni bëccëg bu ci dem mu daal di force moom pousse bi kooku nag mooy leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy kan mooy ki ñëw nekk ki gën a rafet ci la yàlla bind mooy ki gën a mat ci li yàlla bind parce que bi ko yàlla di bind xam na ne mission am jeex yonent yi yépp ci nekk yàlla jox na ko mission waaye xabal na ko ne borom mission bi ñëwagul te bu ñëwee na ko gëm te nga sàkkal ne ko ndax bu ñëwee da ko gëm su nangoo mu yónni ko su ko nanguwul mu ne ko du ma defal yonent boobu nag yàlla daf koo defar ba xam ne amul dara ci moom loo xam ne mbóot la lépp mën nañ koo taal taal làmp lépp mën nañ koo teg ci mbedd bi نخوخم كارل دخم كارل توغم كارل تخوم كارل جم كرمم كارل بلا جم كرم كارل بلا وانا كنا وانا كنا رفتتي توغم وي يجال محمد صلى الله عليه وسلم يرتو بوبو موي كان موي لمين كي يالا تودي كنا خمنا موم لن وولو pour jox ko wax yu gi nga xam ne mooy téere bu xas xam ne bu xasee moo tax ñiy jéem a xeex lislaam tey di wax ne dañuy sobetal alquran di wax ne di gis indi ay sikk ñooñu bu eboon noppalu parce que yàlla bi muy tànn alquran di tànn yonent yàlla muhammad pour alquran boobu moom rek a fi nekkoon moom kenn foofu la defee lépp foofu la programme yëpp te loolu kuñ ko wax koo xam ne yaa ngi amee ordinateur nga mën koo xam parce que bi nga bëggee def sa site leneen njëkkee xam nga ko li nga njëkk a dugal xam nga ko li nga dugal yow pare xam nga sa passeport bi nga xam ne moo lay génnee lépp yonent nag yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy passeport bi ku wax laa ilaha illallah waxoo Muhammad rasulullah da nga dugg kon yonent bi mooy passeport bi ba duggee nag ci site bi ci daf yàlla la yàlla dara mu yemul fenn léppam dafa yaatu léppam dafa daj léppam dafa mat moo tax yonent boobu bi mu juddoo yaroo ci Makka nekk koo xam ne mu ngi diggante ñaari waajuram ñu jur ko ci réew moo xam ne civilisation amuñ ci dara ci réew moo xam ne alal amuñ ci dara ci réew moo xam ne xam ci dara nga bokk na ci secret yi tax yàlla tànnal ko loolu yëpp moo di ne su fekkoon na tey bi mu ñëwee dama fekk maamam nekk borom xam-xam yi ah maam moo ko maamam borom alal ñu ne maamam ko jàng moo ko jëndal nit am xam-xam ñu ne maamam moo ko jàng kon lépp ne mën naa tax ñu ne ko def rek yàlla dafa yóbbu diw moom yóbbu ndeyam yóbbu baayam ba bàyyi ba des moom connal yàlla amee ko boppam te yàlla ku mu doo sànku doo dellu gannaaw te fa nga jëm dana fa àgg muy yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ku rafet ji la ci jëflante bi mu nekkee xale ñépp na nañ ñu ko tuddee woon amin kuñ óolu ka te ku gën a am yaakaar gën a am teggiin ci nit mooy moom moo tax bi nga xamee Jibril ñëw na wàcc ci moom alxuraan mu ñëw na ndey Xadija sànqma parce que yaakaar naa ne damay waaj a doon ndax xarit boobu de xamul nag génn dina ñëw wala alxuraan dina ñëw leeral dara waaye def na ko yow yàlla dina def loo mu ne ko foo ko teg mu ne parce que yow dangay jokk mbokk yow dangay dimbale nit yow dangay fat aji tumuranke yow képp ku am aajo bu koy boo ko yëgee taxaw nga ci aajo nga faj ko ko te yooyu ku ko ku koy def rek yàlla du la def loo mukk ci àddina kon kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doy naa ci kam ci kaw téefam kenn mënu koo dajal moo tax bàyyi daan wax ne boo jàngee bay bay bu njëkk bi ci laambi hamziya rek kayfa tarqa ruqiyata al anbiyaau yaa samaan maa taawalat ka maa taawalat ka samaa bàyyi na béykat boobu rek doy na ndax moo tax lépp loo tegal ci béykat boobu rek saraaj saraaj béykat bi la lépp lu ñëwati rek saraaj béykat béykat bi la dundam bi saraaj béykat bi la waxam saraaj béykat bi la jëfam saraaj béykat bi la xoolam saraaj béykat bi la lépp loo xam ne yëngatoom la saraaj béykat boobu la sallallahu alayhi wa sallam am na ay mujizaat yoo xam ne kenn mënu koo tënk. ndax boykat yépp essayé dañ koo waaye amul ci kenn koo xam ne am na ci mat dix pour cent ko buggee laaj boo buggee xam loolu euh, foofu fu mu ko ko jëlee fi wax ne ne maa la yónni te bu la yàlla yónnee kon te yàlla moo man lu ne am lu ne ne fu ne xam lu ne ne ku ne bu la yónnee dafay def boppam waaw loo bëgg mu defal la ko loo xool mu ne foofa la loo musulu mu ne bokkul loo ñaan mu jox la ko kon kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee xam yonent bi ba tey laaj ko mbëtt mañ rendi woon ci suba teel waa ji amee ko ba ci tàkkusaani suuf mu ñëw di romb yonent bi yonent bi ne ko waa yow doo doo ma gëm mukk mu ne ko man mosalal sa bopp man du ma la gëm mukk feeg mbëtt mii nga xam ne te suba laa ko rey fees ko jëme ko suma kër feeg wax dekkiwul wax ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xam na yàlla rek mooy buute yonent bi yow yonent bi yow yonent bi yàlla feeg mbëtt mi def deful loolu man du ma la gëm yonent bi ndax bu mbëtt mi defee loolu gëm ma mu ne ko bu mbëtt mi defee loolu ma gëm la يا غبو لأنه أي مرت مرت يقول بيك يا زيد من أصلا ما شفعت ما نقول أيو يوم القيامة كيف يقول يوم يوم يا بدر يا يا يا تاري لبو هو ولا باي ما لبوك ما ل لبوك مي للصف ميوغنه خوي يوم القيامة دي درم وين جكك وين مجد تبغى يرن يبدأ ينقص يوم تبيه بندنا أم رزو أم الكبرك أم رزو كرب دمنا جي آدم من أم أم رزو يدم جي نوح دم جي إبراهيم دي دم جي يوم تبيه بني بجاه كن يرام بني نني كن دم جي مو من تلو من كيسو بقول أكل بني يوم جي مو صلى الله عليه وسلم من أنا لا من بقول من ما بقول دالي دم جي بيه برومبي دي سجود يلا نقول تاي دوبسات سجود دري لاش الجهلة قرن يوم بان الفوضى سجل بيرا قبل إبراهيم عبد الله الياس لقاتنا متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشدو بالثناء وألوحه من الكراكين لا يقاتوا سوي وين وبري جحل نكمل اليوم يرد يا محمد صلى الله عليه وسلم من mbëtt mi waa ji ne ko moom bu la bu la mbëtt mi gëmee dama gëm la yonent bi ne ko mbëtt mi yaay kat man maay kat mu ne ko man lay nuyu yow mi nga xam ne yaay gën ci ku ma sa taxaw yow ma xiyaama waa ji ne ko dem ci mbokk bi ne jógee naa ci koo xam ne la benn xam ne li muy wax dëgg la waaye njabari tey moom ku bugg a jabaru rek mooy waram ci moom kenn mel ni mu dal di Makki bi wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mu ne ko gëmuma dara yonent bi toog na benn gëléem ñëw di xuus nit ñi ba agsi ci moom jël gémmiñ gi teg ko ci nopp bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñaa ngi xool waa lii lii la lu xew li yonent bi ko mu ne benn famille ne ñun ñoo moom mu ne ah mu leen di tawat de nee na lu ngeen koy jox muy lekk lu ngeen koy jox muy naan da ngeen leen koy ñu ne ko wallaahi sang bi noonu la amee kon waxi picc yi sax na ko waxi ci boppam amul dara waaye dégg yàlla ga bu la déggalee nga dégg waaw boo ko bàyyi di wax na ko déggee ma ne ko ni ma ko déggee lépp lu ñëw rek gis ci àjaba lépp loo déggati ci wax danaan ko dégg dañ ciy dégg dégg àjjana lépp loo daan def dama la yéem boo ko defaat da nga ci gis la gën a yéem ajaba dafa continuer ci ci ci nit ñi xam nga ajaba soo ko buggee euh, euh, junjal mooy euh, la yàlla wax ne moom moo fi nekkoon te moo def lu nekk waaye lu nekk nag su munul yóbbu diiha laa shu'uunun yabtadii kulla yawmin huwa fii sha'nin kooku yàlla waxoon ndax yàlla lu mu am rek may na ko jaamam lu mu am rek may na ko jaamam kon bu baay wax ne taraw ajaba nga ngay lu bees fu mu ko mayee fa yàlla wax ne kulla yawmin huwa fii sha'nin kon waxtu wu nekk mu ngi ci mbir bàyyi itam waxtu wu nekk ay mbiram mu ngi ci kon nañ nañ dem mu ne gë gi wax na loolu ñemeetuñ koo xiifloo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bant bañ ko taxoon defaroon mu ci taxaw di gàmm di eh, jiite ajjuma di def xutba dafa am ñu ñëw ñoo xam ne dugg nañ a lislaam te ñoom waa Iran waa Perse lañ ak ñooñu ñëw yonent bi ko dañ lay defal léegi def suñu réew muy benn minbar boo xam ne boo xutbaat yi ci lay taxaw yonent bi ne waaw ñu defal ko minbar bi muy minbar ba nekkoon nekk foofu ba tey mu ngi ca taxawee ñu toog ñetti guddi dégg ay bind yoo xam ne kenn xamul fu jóge guddi ñetteel gi nag mu dagg yonent bi ne ndax dégg dégg ngeen loolu bind ñu ne ko waaw mu ne bant biñ ma defaloon de ma daan cee taxaw moo doon jooy noonu de ndax bi ma defalee minbar ma dem taxaw ci minbar bi tàggoog gi ma tàggoog moom moo taxoon mu doon jooy guddeeg bëccëg ba noppi wut lu may damaa ñëw teg ko suma tànk bi ne ko xanaa doo nangu ma boole la ci garab yi nga xam ñooy mañ nga ba àjjana yi ëllëg ci la nangoon noppi garab de kon bant ci boppam namm na ko gannaaw ba mu ko soree picc ñëw na naaw ba tiim ko dee ak moom yonent bi ne ana ko jël jalgati picc mi jël ay doomam benn saaba ne ko amante ah, maa ko jël mu ne delloo la delloo la delloo la ko yow yow di di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuflee dama rek dundil la dundal la ci dekkal la ci yàkkal na ci ñam tasaare na ci eh, xare bu rëy yooyu mu ngi xew ay place kan la ci yokkee ñam keroog xaswatul ahzab bi julli ñi eh, di gas gas ma parce que effort yi waxoon nañu ñoom gaw si pour anéantir leen pour faagaagal leen ñu gas ba mu dina wër pour kenn du mën a dugg ci dëkk ba ke bés boobu keroog bi ñuy gas ba àgg ci benn doj mënuñ koo xar yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam dafa dóor mu leer mu dóor mu leer mu dóor mu leer ñetti yoon mu ne maa leen di bégal ñetti leerin yooyu bu njëkk bi wax nañ ma lépp loo xam ne suuf si arab la ñëpp daañ gëm yàlla bu ñaar bi wax nañ ne Faris daañ gëm yàlla ñaar ñetteel bi wax nañ ne waa waa Ruum ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ñoom itam danañ dañ gëm yooyu euh, booba ñoo amoon àddina bi ba nga ne ku nekkul tax euh, romain boppam mën ngaa amee nationalité romain waaye ñooñu arab yi ci lañ bokkoon waa Dimashq ak waa Jordanie waa Iraq waa ñun ñoom ay romain la ay perse parce que romain yi ñoon ñoo daan coloniser waaye bi gis loolu yàlla woon ko ko wax leen ko naafeq yi di kekk kekk yi naan waaye waaye seen bi di moo ñëw yàlla waaye koo xam ne yaa ngi tiit bay gasu pour pour nëbbu leer na day élèves yi dëkkee tubaab yi waaye boo ko doon fàttali borom innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakunu mu ngi fi li ñuy em fan yii muy seen président bu nit ku ñuul te kenn kenn mënu toll dana ilif Amérique benn bés la xalaat moom waaye bi ko yàlla namma innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun Obama nekkal président Obama mu nekk président ku ci mën dara bii ñaan kay mooy yàlla na jig lislaam jig jullit ñi te yàlla dindi coono yi nga doon toggoo yëpp ci ci ci réew mi foofu la njëkk a jëfandikoo loxoom mu jëfandikoo tufli dem keroog ci tàng yooyu mga khibah, khibah, khibah, khibah. Yani sahabat yu yu ci moom ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ñu ñaanal yàlla ndax xibaar ñu bëgg a rey ma ki tak khair si sa ci Kala biir bi ki ne ko man tam maa ngi takk xeer ci sama biir bi yonent bi añ biram bi Yu fek fa ñaari khair. kon nga xam jang kwan jànkoonte mo. Yu yu jang kwan ko moom moo tax bàyyi na سرين بوي كي خامن ليم دوند لا لاي داف يوتا ليم دوند لا لاي داف داي دم بام لوكو داف ناك داي دم بام مات سرين يالا جوخ كو لوم مانا جوخي تبو توتي داف مالا تي بوبام واي سو بري رك موم دا فاي باوا كن مولانا الشيخ ابراهيم رضي الله عنه بيغا رمي هلاك نين في غزوة الأحزاب كيف بيمتلون yàlla yàlla yàqeewal benn saaba mu ñëw ci këram ne jabar ji man kalma gi di gële ma gis ñëwee ci naa ko parce que wax dëgg yàlla ko mel noonu léegi damaa bëgg suñ mbay mbay si bi ne nga ma ray ko nga jël li da amoon ci fëriñ nga mooñ ko ma dem njagal yonent bi sallallahu alayhi wa na ko oray la jigéen su tuuti ak juróomi nit ah ndaw si daal di commencé di mooñ waa ji itam ray xar mi ba teg yor di doom ji ne ko demal ne yonent bi saa su nga dee ko ko nag de nga ne ko am na lu ñu la pare fële du tuuti loo xam ne mën naa doon juróomi nit yonent bi ana Bilaal mu ne maa ngi nii mu ne yéeneel eewet nañu añ ñëpp xale bi yëpp la ñëw xale bi daw dem ci bàyyi si ne ko bàyyi ak tuskare la tuskare am na de tey ñu tey ñu rus de mu ne ko lan la mu ne ko yéen ko ne ak mboolem xale bi ñu la ànd moom di yow mu ne ko xanaa waxoo li ma la waxoon mu ne ko am kay mu ne ko kon nag dafa bëgg a def xar baax ñoom dañ koy jëli dañuy jëli dañuy amul réseau moo tax lu mu wax ñu jëli ko ku amul réseau doo jëli dégg nga mu ne kon dafa bëgg a def mucjisa waaye mu ne nag bi boo demee bu sa yaay commencé lakk mburu bi te itam bu mu commencé togg yàpp ba ma ñëw bi mu ñëwee loxo ba la ca teg ne ko ak bismillah teel ma ndaw si di booñ di lakk yonent bi ne Bilaal leen dugal par fukki nit fukki nit duggee lekk lekk lekk ba suur génn yeneen fukk dugg waaye nee leen nag bu leen dem ma yàq xam naa ci si ci séeréer ñu bëggee ma caat loolu ko waxee na waxoon na leen jaaxal xam naa moom bu ma déppoon daf ma ciy jiitu ne ma ñeseen bu ñu ko waxoon ñeseen si ñu bëggee yàq waaye maa la ci jiitu rek su nga defee ñii dugg par fukk di dugg par fukk di dugg par fukk ñii nag mat nañ juróom ñii nag mat nañ ñaar téeméer waaye lu mën di am daal bëri nañ bari bu mat sëkk te ñëpp lekk nañ ba suur bi bi ñëpp suuree ba génn na yonent bi daal man man ma soog a lekk Ababacar ni ko ñett ñeen ñëw ñu lekk kon tuuti na ci benn teen teen ba dafa nga coon ba kenn mënul fa am ndox lu ñu gas gas gas ndox mi du génn yonent bi daf ci li rek teen ba ba mu ngay ban mu ngi ci place bu ñuy wax Dahbaan soo jógee di jëm euh, Makka mu nga cee Dahbaan wala teen ba nekk ba léegi mu ngi ball comme euh, euh, Lac de Guiers nu muy ballee ba léegi ni ni ngeen cee naan ndox te benn tuuf si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko melal noonu te ndox mu di la woon mais bu ñu tuuflee dafa sa soppeeku ndox mu neex moo tax mu ne tuuf yi yokk na ñam barkeelna ko tuflitam baril na ndox ci teen boo xam ne amutoon ndox mu ne teen xam ma nag sallallahu alayhi wa sallam garab la koo xam ne lu mu ko ku feebar bu la laalee nga wér garab la koo xam ne ku feebar bu la laalee nga wér sallallahu alayhi wa sallam faj faj na ci ñu bëree bëri mu ne kanamam gi nag moom nekk na kanam koo xam ne moom rek daal a juble Abdullah ibnu Salaam ci kilifa yahud yi la bokkoon bi yonent bi wàccee yahud yi bañ koo topp mu ne man de danaa dem seeti waa ji bu fekkee ne melo yi ñuy jàngaloon ci tawreet mel na ko bu keroogee man danaa ko gëm maa ngi leen ñaan bu keroogee nañ ko gëm ah, عبد الله بن سلام خي نيوت كير يونس بن سلام سلام ني دما بو غي سن غال يونس بن دال كوي اكور دي اوجانس ابن تل اكرم يونس بن صلى الله عليه وسلم لا ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله في رقاه لغا دم غلا دي مولاي كرم كي دو كرم كرم فن كات وتا جبلنا كو خامني ييفر لون تي تي ايفر كي لا Munayyootu sallallahu alaihi wasallam baatam moo dàq loo dégg ci àddina boo xamee dafay jàng alxuraan wala muy tudd yàlla ci suba boo déggee baatam dootoo mën a téye sa bopp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam yàlla gàññee na ci dundam wal asri inna al insana bi xusrin yenn borom xam-xam tafsir yi firee nañ ko ne asru mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gàtt gàtt bi daal yonent bi ko indi muy yërmande pour mboolem bindaafoon yi kooku ko jubloo tàndal ko teral ko jox ko dara ci moom bàyyi wax na ci bay dem ne képp koo xam ne dund na leen ci màggal yonent bi lu day nii benn diram yàlla daf koy jox yoonam bu fekkee bana donc lu mag la lu rëy la mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu mu baal la te may la yërmande tam na nga wattu di rëy rëylu wala di wane wane sa bopp may ñaan fi lam ne yow ñaari way sayid yi yow maa bi ñaari way sayid yi ñëw nañ ci sa bunt beesal suñ kóllëre gi yow te ñu ngi koy defe ci mbëggeel ma ci dünyanın çıplak kep Fatıma Zara. Nur abne İslam domi yılların kongse domi mu Fatıma Zara. ñuy jottale ko ci moom pour nga nanguñu ak nuñ mën di mel nga nanguñu ak nuñ mën di mel buñ baaxee buñ baaxut ak yow koo bëgg a baaxal baaxal kon nga nanguñu rek mu ne ñu ngi jottale ki itam ci seen yaay muy Xadijatu bi nga xam ne góor gu nekk am na jigéen ju nekkoon ci wetam ba muy neex wala ba muy naqari Xadijatu moo nekkoon ci wetu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy naqari ba muy neex mu ne Fatimatu Xadijatu moom nga xam ne moo tiim wala jigéen ñi àddina te moo jiitu képp ku jigéen ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ndey Aïcha comme dafa fiiroon fiiroon ndey Khadija waxtu wu nekk muy dégg yonent bi di ko tudd di ko tudd di ko tudd bu déggee baat bu niroo baat sax mu ne ah ko leen niru naa mu ne ko màggat moo xam ne dee na bi yàgg ba koro waxtu wu nekk dañuy tabtar rek ci di ko fàttaliku mu ne ko wallaay kooku man dama ko fàtte léegi nag benn bés ndey Aïcha di gaaral Fatimatu Zahra ak doom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan leen ah man day ah, ku ah, ku man di jiitu ci seen baay ak ah, ku man di doon man de ci ngoone la ma jëlee man xam nga mi ngi gaaral yaayam ne bi tekk booba di ko ne ndax sëy na ñaari yoon ne Fatimatu di ñëw di jooy ñëw moo papaam ne ko den na sama tànn li may gaaralee de mu ne ko du ma wax mu ne bu fekkee ne yow sama yaay moo moo moo jiitu ci yow ma waaye man ci mboone la ma jëlee mu ne ko bul ko waxatee nga ne ko sama yaay itam ci mboone la jëlee sama baay mu jeex rek wa sallam ñu ngi jot mu ne ci woy bi ñu ngi ci Haydara fii Ali ibn Abi Talib nga ne ben dövbe ben cehennem. Tey yakari Fatıma Zahra. Tey member kare kareya. कि हमने मॉडर्न निर्मल ज्ञान कति खरबी सभ्यम ते सभ्य यार कि हमने चिमम ले उबे मॉलम तते इदोर युबे बकने जिदा तते खैबर सिदना अली yonent bi dafa nekk Xaybar ñuy xeex ka ka ka ji te ubbeeku ñu koy xeex ba guddi guddi gi ñëw mu daal di wax ci biir mbooloo bi ne gis nga bu ëllëgee raaya ji danaa ko jox jàmbaar yoo xam ne moom ubbi mooy ubbi tata bi Seydina Omar nee na kanam dara loo xam ne dëkk naa ko mu war a lu may keroog keroog de tama moon na raane ko ma ndax ma ma ma ma ma moom ko waaye bi turi xëy na ana ba ana ali ñu ne ko ah si naa li ngay mënta ñëw dafa wànnent ba mi ngi ragal sax ci bëtam yi mu ne indi leen ko ñu indi ko rek mu raay bët mu mel ni Moustapha Diagne mu daal di ko jox raay bi mu daal dem ubbi tataga kon kooku mooy Seydina Ali mi nga xam ubbi tatay tatay Xaybar maa ngi jottali ko dem ci Hamza sa bay tax bi nga xam ne nan melu naa pour ga wattu lay moom keroog Uhud moo la jotee boppam Uhud lañ ko wax wax si moo ko rey mu ne suñ mébét yi bëri nañ li ñu yaakaar nag mooy nga nangul ñu lépp lu ñu defal ba pare fajal ñu suñu mboolem aju yi ndax bu fekkee ne daana daana joxe njëkk nga ñu lay laaj ñun xam nañ ne joxe kat la ndax daana joxe dem nga ba daan joxe téeméeri gi la fa kam akarin kam min qanatira marratan wahabta ila al aadaai wal kullu yafaaxu mu ne ko bàyyi ne bëri naa bu bu bu boo mayee akar akar ci loxo arabiya mooy lim gëlëm boo xam ne da ci gën a néew mooy téeméer da ci gën a bëri kon mu ne eh, ki may bu rëy sama yi yooyu sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko maa ngi lay xamal man dañ maa wax kii laal sa mbëggeel وكلت بالحب من اصلي سواء جسال وموكل كل ما قلت ان يكون بقل من النبي صلى الله عليه وسلم انا كل له ترى انا جا قمنا ما نقول بوك له شكو ارتشوف لان انا مسمى ويلي تنام بوك كوي جانب أقول اقلب كل جناك اي قاك تلي اقيوية بوك خول صلى الله عليه وسلم même ñu jox rek li li liñ bëgg may ñu te itam may ñu ngërëmal suñu borom bi nga xam ne moo jubal ku ko neex yàlla ñu bokk ci ñu ñu ko neex mu ne ak ca malaayka yi am nañ liñ bëggoon li tax ñu am ko mooy yonent bi donc yonent bi dañ wax naa la Jibril ne ko يقول لكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ينو ملوين إنك يرمان إن يا جلني من أقول لب بدي على بندرة مصنع رحمة الله يوم تبين لكم بجي يوسف من بجي من رحمة الله سلام يا الله كما لنا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أمانة جوجو يا melaloon melaloon ma ko yow sa barke dafa amee yonent bi keroog bi ñu koy rañaanee ba mu taxaw ci aras aras dafa téye ci ñaari tànk yi ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay lentalu nga nekk suma défenseur yow mal qiyaamati wax nit ñi ne ak ñi ko gëm ne man mosuma wax ne man maay gàngu naay yàlla bu yàlla toog dama attan yàlla yàlla lu ko attan demoon sax yàlla lu fi nekk ak moom bu mu laajee waroon na njëkk laaj lu fi nekk ak moom mooy mën a nekk toogum ba mu mën cee toog mu ne yàlla kay moo soppandiku ci man na ko bëggee waaye man du ma kan du ma kan mu ne yàlla mu ne ko dama bëgg nag yow ma qiyaamati nga nekk sama awkaat donc ñoom ñëpp yàlla jox na leen ay xewal ci barket yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag may gën a sàkku yonent bi ne ko tey jii nag ji sa xeetu yi ñu ngi sàkku jëm ci yow pour ngir boole seen mbooloo ci waxtu woo xam ne waxtu wu nëpp wu lëndëm la ñaanal ñu yàlla yàlla dindi nattu yi nga xam ne teg nañu ko ba muy dox suñu ñu nekk ay jullit ay mbokk ñuy xarate xarot xaritoo ñu nekk ixwa ci sa sarraay wa darraay yow yonente bi wa sallam ñu bu fekkee am na kenn ku am benn wéeruwaay ñun de suñu wéeruwaay yow dong la yow dong te itam bi ñuy wéeru ci yow ñu ngi ko defee ci keppaar ak Ahmad ki Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wéeru boobu ñu ngi ko defee ci keppaaru Ahmad ku eh, eh, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu yàlla yàlla fayal ñu suñuy wajur ndax wax dëgg yàlla lépp loo xam ne cant la na mooy kan mooy ki nga xam ne moo sellal digganteem ak boromam sellal bëggeel ak boromam أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم تمستقيس سكنا إلى غير خير الخلق لن أتملق كل يوم تبي من برام الجس دوك القارن دو دمتهم وتبتهم تس يلا يلا فيقوم قصد بي biñ koy def ca madina munawara boobu عبد الله ngi dund ma يقول ko ci ñaanal wal tashfi abdaka abdallah yàlla nga sa jàmm bi kii Abdullahi comme moom na tey te Ahmad moo fi nekk ñu ngi yóbbu jaan gi yóbbu ko ci Ahmad wa tashfi abdaka Ahmad yal na yàlla saafara Ahmad daal. yàlla béy bu wér mu yàgg ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul dayo nga mooy borom rammu nga mooy mu dëppir ak saxaabaam ak ak ak ñoñam bépp boo xamee ne am nañ suñ càpputeef ci ngéneelal yàlla ci mbooleem jamono yi maa ngi julli di sëlmal di sëlmal itam ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bépp boo xamee ne nit ñi bépp nañ ci gàmm te gis nga lii bi gàmm la ku la wax ne du weeru gàmm nga ne ko ñun eh, jëfandiñ ko jëfuñ ngir weer waaye borom weer a tax ñuy jëf te borom weer du ko jóg mu bu nekk ربنا كتب له ده المتصل بالمتصل متصل كجوك كجوك كجوك كجوك يوم تبي مو جوك ديانا كجوك لا كون كجوك ديانا تبي جوك لا كنا يلا يلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا دخل لين lépp lu ñu seetlu ci guddi gi ma leen di seede leen ne ma ngi gën ci yàlla ne guddi gii gëm loola bàkk ak maam alaji أبا خليفة نبيل خليل رين وخمنا تاريخ بقى فاتح يلا نسي الله جمعنا جمعنا جمعنا كرم بابني أمس بني فكي سني آه، أصله إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين amma dole sai an yi bara an yi badi an yi wannan karan bari kuma za a yi kullum za a dinga yi saboda me saboda Allah yana da komai baya son komai mu ba mu da komai muna son komai muna daga hannu da Sheikh Ibrahim malamin mu da Sheikh Ahmad Tijani da Sheikh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi muna fata Allah ya biya mana duk bukatunmu na zahiri dana ba babir Allah ya yaya ya duk mushkiloli wanda ana fama da su na takarda na aure na eh, eh, rasuwa duka Allah ya yaye mana su kuma ya sanya mu cikin almajiran shehu ibrahim wanda shehu ya yarda da su saboda wanda shehu ya yarda da su su gana su shiga أما وأنا بين أنا رزوها تشيك أوكو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi leen di ndokkeel ci guddi gi te di leen di ñaan ci yàlla mu mag mi tabaraka wa nit fi ñaan lépp yàlla ñu ko yàlla nangul te di leen wax nag ne yonent bi sallallahu alayhi ñuy wax fii de nee na wa ana qaasimun wallahu loolu la wax de mu ne yàlla man maay séddale yàlla de mooy joxewaat man maay séddale ndax séddalekat bi jar euh, ku meroog moom di nga kontaan xam nga jar naa xaritoo ak séddalekat bi de séddalekat bi nga xam ne moom dañ koo jox rek am sàq rek ña ko joxeel kooku de xam nga xaritoo ak moom euh, di kontaan. te yàlla nee na ko jox man moo ne lu tax nag mu njëkkee sax ne man maay séddalekat bi ba pare door wax ne yàlla mooy joxe kon nag séddalekat boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ñuy waxal nag tey ay mbiram sëriñ bi xam nga dafa ñëwoon semaine ba lay passé am lu ñu ko wooyee ci Afrique mënut a ñàkk mu dem ca dafa une semaine rek ñëwaat ñaari déengoo ngir ñëw rek wax ñu yonent bi sallallahu alayhi wa te kat bu ñu doon wax Lat jor juuma sama gi laa jéegi da ngay gis seen jàmbarte kooka nga bëgg leen sa xol sax pour ndég seen jàmbarte kooka te kat ñoom dañ da rayee nit sax te defuñ leen dara bu jàpp leen jàmm te nit ñaa ngi leen di bëgg ngir seen jàmbarte kooka yonente bu mag bi nag sallallahu alayhi wasallam nga xam ne jikkoom lépp moo fet ñu ñuy wax ci moom nag xam ne moom ku ko bëgg texe aduna ak àllaaxira ñu ñuy wax ci moom pour ñu mën ko bëgg kii defal ñu lu toll noonu ndax amul lu lu ñu war ci diggan suñ diggan ak moom ah kay محمد المصطفى اللهم بارك على سيدنا وعلى

الساعة ما أغنى أعلاه محمد المصطفى الحرب لم تترك مزاياه وتلك رابته وتلك منته وتلك هجرته وتم طالاه والمسوى على مولانا الوام برهام مادحه برهام خادمه وفي مدايحه وفي خطاياه

Tijan Sharif radiallahu ta'ala anhu. ñeen ko jàng ba bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ñu ngi lay nuyu te di la siyaare di la masahu di coono di nga xam ne yaa ngi ko toggoo di islam ci jaami yàlla yi jullit yépp nga nekkal leen ak du jullit te bëgg aw yiw nga di ko génne ñu ngi leen subu coono te dële ci ñaanal yàlla nga am ci wirase ci maam ndax gis naa fa ma waxee ne foofu ay bi ne waxee na ko sa dox bi bëri te fa nga màggat na nga noppalu waaye la mu tontu mooy noppalu mënul xam yaa ngi yëngatu ci yàlla ñëwoon nga fi yoon boo xam ne bii nii da nga si rek am beneen yitte ci gannaaw boo xam ne bii nii mënulu koy manqué nga dellu ca dellu dem dellu defaatu dellu loolu nga xam ne ñi nekk fii nii di njaboot gi sa xol ak sa xel mu ngi ci ñoom te it liggéeyal yàlla jaral na la jar na ko it na maa ngi lay nuyu di siyaare di siyaare si pays bi mboolem lu bokk ci Maam mboolem lu bokk ci ñeseen yéen waa dëkk bi maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo di gan nekk fii nii nañ bàyyi xel ñaari mbir mooy gan bu génnee nekk ci béréb dafay bàyyi xel ñibbi wala moo bàyyi xel ñu fekk ko fa boo bàyyi xel ñibbi da nga préparé sa bopp boo bàyyi xel ñu fekk la fi da ko waajal sa bopp ndaxte ki la fee fekk mën nga koy rus te bu la ci melo woo xam ne bii nii boo dikkee da nga xat waaye boo dem it man laay dem ngir ndax ni nga meloo itam da nga am fitna kon lii moo ñu andil lii liñ jàppoon nag ba mu ci continuer sëriñ bi ñu gërëm ñu gërëm ci gàmmu tur bi ñu tuddee Baye Khalifa di ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi jëriñ ma nag li ma bëgg wax dama ko bëgg a wax man ci bàyyi dama xamoon nag danañ ma nangul wala ndax ma continuer ci yonent bi rek te bu fekkee wax ci yonent bi li ñu war a wax wax nga ko bu fekkee nag ci bàyyi la yow waxuloo ci dara waaye ñun am nañ luñ ci waxante ñu ne neen ndax may ma tax waxuloo ci dara ma tax waxuloo ci dara yaa di ma tax waxuloo ci dara kon maa ngay laaj maa ngay laaj am fi sama yi tey moom ndax niir wi asamaan si niir a ngi ci wala niir nekkul ci ah ta baya baya rag na kata wal madam lay ma wala imam musafi wa ma bastum mufidan فيه خيم أو خيوم أو خيوم waaw sopp waliyu yàlla dafa am njëriñ sama doom ji maanaam sama doom ji ni ba may wax daf ci wax kuy jëriñu ci jamono gannaaw bu nu boobatu jeexee ak irsaal ak irsaal dagg nu boobatu jeex boromam nekkatut fi ak irsaal di dagg fu nekk nii dara desatut ilal mubasiraati mooy gént rek bil ulmi moo tax waxoon ne ruxya boo xam ne bii dafa nekk saalix nekk ci rajulin boo xam ne bi saalix la dafa nekk sitatun wa arbauna jus an min na nu boobati léegi nag fu nekk mu basiraat boobu rek moo des te nañ xam ne Cheikh Ahmad Tidiane yi wax na ne ku weddi sa wëli yi jamono bi nga bokk ak jamono du dee mukk te yàlla tàmpe wut ci tàmpe bii kii weddi la ku weddi la boo xam ne tase ngaa sa wëli yu jamono weddi ko boo tase sa yonent jamono danga weddi amul benn ñu moo wax ne bëgg leen dañ cee moo wax ne waman yuhibuni waman yarani fi jannatil xuldi bila buxtaani is annani xalifatu tijaani mawhibatun li ahmadul hadnani gis nga is annani xalifatun tijaani boobu noonu daf koy naxee ñi nga xam ne seen kii daay fañ dëgër borom kii daay yu dëgër yi rek la koy neexee waman yuhibu nii waman yaraa nii rek fi jannatil xuldi dugalut fi baat boo xam ne bii nii dee am ci dugalut fi baat boo xam ne boromam fa tëxu dem àllaaxira déedéet fi jannatil xuldi rek ay daaqilun fi jannatil xuldi bila boxtaani is ana ni xalifatu tijaani loolu nii borom kii daay dëgër yi ko ñu xam ko xàmmee xam ne moom jëmmi Seexu Tijaan bi ñu xam ko xàmmee ne moo di jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxee rek ku jàng da nga ko dégg te salaytu subha bi màkkatin ñu ne ko booba yaay kan mu ne maa Ibrahima xalilullahi maa fi tabax sewam kaaba bi wa bi taybatin maa xoote woon ca madinatul munawwar maa xaree Xaybar ak Uhud ak فنك ما فقري ومصرا بفاس ما عندي جورة كمان على مصر وسلم على حين رمك الربانية ولأقوة المتحققة الهائسة بمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الأدمي صاحب الحق الرباني من النور الذي تكون الأدمي ومن هو صاحب الأدمي صاحب الحق وكما صاحب الحق ما الرباني saaxibul xaqi ar rabbani saaxibul xaqi rabbani yarkat bi wala borom bi baat bi ni ñu koy firee yarkat bi borom bi saaxibul xaqi rabbani yarkat bi wala borom bi la ñuy wax ñu koy firee lañ lan lañ koy firee boo demee ca surbul saaf min këramil waaf yi dana téere boo xam ne bii nii dox ci dofi Seex Tijaan yi moo ko bind saahibul xaqi rabbani dafa wax ne xam ne ñaari firi saahibul xaqi borom dëgg gi ar rabbani yi kii ko boromam kon xaskanee la saahibul xaqi borom dëgg rabani ki ko jub kat bi moy borom xam-xam bi mané yar nit ki bam mu ci yàlla wala deug gi nga xam na gi ni mom modi ko jub borom mom modi borom mom modi modi borom deug gi moy borom deug gi moy borom deug gi saa bi xaq rabbaani albartu nastaye bi mu soone larbahi maali ati li kulli mutaharilin wal awani ونور كلامي الذي ملأت به كونك قد هايت بأمكنة المكان اللهم مسلم وسلم على هين الحق كوكو مكان هين الحق التي تتجلى منها رسول الحقائق أنا لا ما رسول الحقائق فالأجساد كلهم خروس فالأجساد والأجسام كلهم خروس حقيقة عروس حقائق وهم عين المعارف فالأجساد والأجسام كلهم عروس الحقائق وعين المعارف الأقوام yonent bi ak lépp lu tajaliyaatu ci moom ñëpp ay xoroos lañ moo tax ñu def ko jamoo taksir yoo xam ne ji xamul xàpp xoroosul xaqaiq aynil maharif al aqwam surat siraatika kaamil la xam ñii di jullit yi dëggal yàlla xoote xoo gëm ko di dox ba xàgg ci xam ko ñoo la jawharatul kamal di tudd buñ leen boolentee ñoom ñooy muhammadi yi bu ko defee nag fàttaliku ak jàmm buñ leen boolentee yëpp ñoom ñëpp jënn jëmm ji la muy Baye Niass buñ leen xaajalee kenn ku nekk jus nga ci moom mahma raaytahaa taraanii fa inni kullu min indi rabbi ca tëjal yaatul asal ba ba mu déparé jàtt bi jàtt yonent dikk ci leen bi yaaw yi dikk ci mursalin yi dikk ci awliyaaw yi ba si ci fi nekk moo tax ne wa asran bi fasin wa maxriban bi kawlaxi jëmu jooju bu fekkee du moom la Ibrahima doon junji na ko fa inna laha ya'ti bi shamsi min al masriqi kon boo ko mënee fa ati biha min al fa ati biha min al dañ foog ne tontu la boo xam ne bii nii maanaam is Ibrahima daf ko caxee Namroos waaye caxee xut ko Namroos de. yàlla mi indi jant bi bàyyi ko ci penku ñëw ba ci sow mooy def jant ci sow mu dem ba ca penku waaye waxut ko yow yóbbul jant bi ci sow ndax xam na ne mënta jëlee jant bi ci sow du ko yóbbu ca sow waaye yàlla mi maye ca penku muy maye ci sow tax ba ati ba min al maghribi borom leer boobu mag gi nga xam ne mooy hijaabal ansam wàcc di aadama bu tajaliyaatoo ci jàpp ci yoon yi daa na ci xaq bi nga xam ne mooy noo lépp lu yàlla xamoon dajale na ko ci noo déeli ko tasaaree foofu ba ci ibrahima mu déeli dajee ci lépp ci ibrahima déeli ko tasaaree foofu ba ci muusa lépp mu dajale ko ci muusa déeli ko tasaareeti ci jaami yàlla yi déeli ko dajaleeti ci xeesa déeli ko tasaareeti ci jaami yàlla yi yépp dajale ko ci yonent yàlla ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dajale ko ci Seexna Ahmad Tijaan tasaaree ko ci di ko dajale si ko ci bàyyi kooku mooy faati bi rek foo ko utiliser kafara ndax laa yaxrifu shay'an xamul yàlla adduna la xam ak capacité adduna waaye xamul yàlla moo tax foo ko utiliser kafara wala laa yahdi qawmal fasiqin jëmm jooju nag lañ doon junj nag ci sowu jant mooy jëmmi baay moo ñu xoo ñu wuy si ko mu moo ñu xoo xëy si ñu xëyu sil ñu moo ñu xoo xëyu sil ñu ndax moo ñu xoo ba pare dikk fekk si ñu yam jooju mo taw fii di waxtan ak ñun di waxtan ak ñun ci yalla ji nga xamne mom moom lañ xam nga xamne ne wax deug yalla bu fekkon xam-xam rek la bu fekkon xam-xam rek la bu fekkon xam-xam rek la kon xamna na ci ño xamne ñi ni ci xam-xam tolu nañ ci xam-xam fo xamne fi ni bu doo doon a xam-xam bi gën ci xam-xam yi nga xam ne mooy lubbu lubbu lubbi mahdal xataa yi moo wala yakoonu xasru diini xasru nag man muhib naa walakin lubbu lubbi mahdal xataa yi jooju baa doon wax xollitu diine bu fekkoon xam-xamu xollitu diine la rek nit ñi dañu jógee koo fu nekk di dikk ci bàyyi ku ci nekk jàng nga ba xam ci li nga xam ne lii nii mën nga xam su jooju baax la waaye lim tax nag ñu fekk si ko bi ñuy dikk duwut pour xale boobu moom la moom la moo tax waa ji doon ko ne ko mu ne seexaar yi ba mu dikkee ci bàyyi daf ko wax ne ko fa fa bahrul fa fa bahrul miyaahi kafa minhu saraabu wa bahrul haqiqati lam yakfi fa bahrul miyaahi kafa minhu saraabu wa bahrul xaqiqati laa yakfi ila alqarab bu fekkee bahrul miyaahi la bahrul miyaahi mooy géeji ndox yu neex yi naan rek doy na loolu mooy sarihatu waaye nag fa bahrul xaqiqati nag moom dem ba yow mi diggoon digg bu si dootuloo fi nekk rek soog di mën a xaar rek. lam tekk fi siwal arab baxru boobu la bàyyi nekkee di ci di ci xutbu xawsu fardu jaamino ba ak mañ ma monsuur yonent bi taxaw dama ca digg Medina nag kenn du nekk duggati ci yàlla bi fekk waxuloo laa ilaha illa muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sa laa ilaha illallah lu mu bëri bëri bëri bëri bëri boo waxee nuhu najiyullahi du ci dara adama safutullahi baaxatul ibrahima xalilullahi baaxatul moussa kalimullahi baaxatul Insa ruhullahi baaxatul dara baaxatul ci muhammadu rasulullahi rek moo baax lépp wa kullu ma faala wa baasa min hadrati rabbi tatalaqaaw sawatil jaddi وكل ما فاد وبرز من سات الجن تتلقاه سوات الأنبياء وكل ما فاد وبرز من سوات الأنبياء تتلقاه ساتي فمني تنفرق مدد الكائنات إلى جميع الكائنات من جل من لمبري يتسارو جم جود بنت خوي دفع وخنة فلا ولي إلا من بهرنا يسقى فلا ولي إلا من بهرنا يسقى كل دوت دو ولي يا الله te jàng jàngaloo faat yi ca jàppaloo ci Cheikh Tidiane wax bii muy wax boo demee ci buntal ñaareel ca Jawaahir Rimaani Cheikh Omarul Fuuti ca Rima mu ngi ko fay saraat falaa waliyun naa min baabina yusqa boo demee ci Rima mu ne lu jiitu Cheikh Tidiane wali yi dañ daan dugg xalwa ba yàgg rek ñu àgg ci yàlla Cheikh Tidiane dikk daal di teg tànk ca buntu boobu ne kenn dootu dem mu ngi ko def benn daayira nii ca xatam ñeent xatma ci wàllu can ndeyjoor bi ci la def wax ja kon mu daayira ba waaye wax ja mu ngi ko def ca kanam moom Cheikh Oumar Foutiyou ca Réma ne falaa waliyun illaa min bahrinaa yusqat kenn dootul xam yàlla te du dangaa jàpp ci sama tarixa bi loolu moom Cheikh bi ñu ko waxee gestuwut ñeent fukki tarixa juróom-ñett yi mu fi fekkoon ndax ne ne tarixa yëpp ñu ngi dem daje ji ko tarixa imaamu Saasali tarixa yëpp benn léeg mujj fu ñuy mujj ñi ngay dem dajee ji rek ci imaamu saasali imaamu saasali mu nga dem ba ci muhrifu karqi mu nga dem di dem di dem ba ci xasanul bisri dem ci xasanul umali waaye tarixa bi moom man sama tarixa bi mun a mu ne fa ibrahima yëtun loolu rek doyoon na tegtale Cheikh Tidiane mu ne tëb rek ne ibrahima yëtun xanafi yëtun moom muhammad yëtun ibrahima yëtun xanafi yëtun loolu rek wax pour muhammad gént ne tariqaam bi wi xam wépp façon bi dana ko dëgg ci kaw bépp tariqa waaye moom benn tariqa dootu dëgg ci kaw ba suuf fesam lii bàkk la borom pay bu mag ba nag bi mu dikkee ba ci koosi moom lu mu wax fa aarifun ila bi baabi ya waaqifan udiru wa usqi turan bi faydati kenn dootut xam yàlla tëddu wala sama taalibet wala ngay sama taalibet taalibet buntal xaarukaay ci yàlla jaarale ko ci roxaan Cheikh Tidiane ko tëgg buntal xaaru ci yàlla guddal kurus rëy kaala taxut nga xam sama góor bi te ñu leen xam yàlla loolu dootul tax kenn xam yàlla man mu salas mu rabaha mu xamas mu sadas mu saba mu samana mu tasama mu xasara ba ci alfu ba ci xasaratu alfu booyee loolu du kenn dootu caaga ci yàlla wallaahi bi maay dikkam xasaratu alphabet bu mu ko bind du ko xool bi ma bàyyee feeñ ne ma dikkal maay sa sëriñ xasaratu alphabet bu mu ko bind du ko xool ma jàngal ko léegi mu gaaw mu rabana boo ko daggee nii daf juróom-ñeenti bët yi continuer di ak dàmm yi ak mu sawaayaa yi dafaa jox la sittatu wa sittina muy alaabu la laa jox boo bindee te dugalaguloo ko aadama la laa jox boo ci dugalee mu nekk alaahu alaahu mooy aadama yàlla moo tënn sulu di aadama di tëjali yaatu di def aadama mooy alaahu ngu yonent bi mosalas loolu la indil ñeenti mos ñett benn ñaar ñett benn ñaar ñett benn ñaar ñett muy mu tasan mu tasan boobu moom ngaa dabb fi tasan fi tasan mu nekk tisan bu tisan na baytal loolu mu nekk alfu bu wér loolu nga bind ko ba jël xool sax loolu du dara bind ko jël xool sax waaye xam-xam bi boo àndut ak xam yàlla boobu xam-xam nen la nen bu tojut njëriñ du ca feeñ xam-xam boo àndut ak xam yàlla boobu xam-xam nen la nen bu tojut njëriñ du ca bàyyi nag dikk ne na falaa aarifun ilaa bi baabi ya waaqifan udiru bu nusqi turan bi faydati kulan kon nag jëmm jooju noonu nga xam ne moo ñu andil faydu bii te nee na kenn du xam te jaaruloo ci moom te jaam yi daa man dama foog ni jaam bu ci nekk xam yàlla rek moo jubluwaay maqsad bi moom mooy loolu ñëpp yoon wuñ mën a sol sol te pep gis naa bàyyi bind ci benn hadis hadis boo xam ne bii nii bu xóotu xóor dafa wax ne yonent bi wax na ne sama saringatu bii nii ñetti téeméeri tariqa ak fukki tariqa ak ñetti tariqa mu ci tariqa boo ci soobu ba dajee yàlla boo dajee da yàlla nag kenn mooy daje wala yàlla ak yoon kay boo ko amee taagaloo ci dëkk xam nga fu nga jëm. ca xam la ba nga jëm. boo demee ca xam la ba bu fa jant ba soxee nga nekk reer ab gaynde wala jaan wala bukki. mooy di dund di dund di dund di dund di dund di dund di dund di dund dund ba dee jot. nga deete yóbbaale wu la bukki nga jëmm ji buñ ko sangee ba dugal ko ci suuf saraxu ñeen fukkeelu fanam ba dana ko fekk muy mburtu xar di tëb fële wala benn candeen di jooy fële waroo ukuli fa an yu sewi de li ne waa biran fa xaawa wa baane xayra mutu sawi di jaam bi xam yàlla rek a koy jëriñ jëmm ji indi nag xam yàlla nga xam ne dangay jàng sariyatu ba foog ne yaa ca nekk dikk nag mu xamal la sa sariyatu ba xamal la yàlla kooku rek moo la noppal moo tax baay wax ne sëriñ mooy kii nga xam ne kii nii fa lay noppal waaye bu la tegtalee xëdduna ngay sonn xëdduna kenn mënu koy dajal te te li rek loo xam lu mu bëri bëri bëri wax na ne doomu aadama lu mu bëri la bëri la bëri la bëri la ba amoon ñaari xuri wurus dana fexe ba jàll xur wële dem di seeti weneen xuru ñetteel dee ci yoon yu ñaari yëpp raw du doy du mokk doomu aadama maamara al jawful insaan ibnu aadama ila turaabu suuf rek moo ko mën a fees gémmiñam suuf rek ko ko mën a fees bëgg-bëgg yi bëri nañ waaye nañ ci boolante bëgg yàlla ndax xam-xam yàlla rek mooy noppale xam-xam bi lay jëriñ mooy bi nga xam ne bii nii foo nekk mu nekk fa ak yow lent nee naa nit ki bu dee buñ koy rabi ñett koy topp buñ demee ñaan ñëpp wàññeeku muy xalaat ji ak mokk gi xam-xam rek la fay dese xam-xam boobu nag laajoon nañ ko aboli si bustaam yi ban la mooy marifatu nafsi mooy xam sa bopp yonent bi nee na man xarafa nafsahu xarafa rabbahu ku xam sa bopp xam sa borom kon nag nit ki fekk xamagut boppam xamagut boromam xam-xam boobu moo lay jëriñ waaw tey masalan bàyyiloon na ko ci mena nee na bu fekkoon ne tey dañ dem ba ca kanam yàlla yàlla soppeeku génn këri nga golo ñëw <laughs> ne ne ne man maa di ana rebu ana rabbukum ala kon ku kon meloo yala ci téere yi waaye keroog da nga wala ndax téere yi lii la jàngal boo demee ci risaala mom daf laa jangal wala nga dem ci misbaaw mom moom misbaaw saalik dafaa wax ne manam واتهم ولهم والجسم والحرج وما على الله امور تفترض موم دافلا واخني يالا دو جيم اي خمنا ولا دو مي خمو خمو جيم خمو ملو خمو تيفكا خمو لي خمو لي كون خمو دقل لك نتي ييب ييب ييب ني نعم، وما على الله امور تفترض كون نتي نون نان لا ديف بو خمي te góob tawhid la lay jàngal mu weddil la na jëmm yëpp mbindeef lañ melo yëpp melo mbindeef lañ jëmm yëpp maa koy tontu jëmm yëpp jëmm yàlla la melo yëpp melo yàlla yàlla rek fi nekk kaana laahu laa sayara maahu hatta al aana huwa huwa al aana hatta kama alayhi kaana yonent bi ma wax loolu seen naa yi daal di ko jot na ko ba tey mu ngi mel na meloon rek ba tey dara sensé kon xam yàlla rek ay nofle noppale bàyyi nee na ku la tegtal boppam xor na la ruj na la sonal na la xam nga looy defam boo ne ko jox naa la sama bopp rek mu jàllal bu ko jëlee di mën ko léegi lu mu xamante wax la ko ne la defal ma ko kan nak mo la noppal moy ki nga xamne ki ni daf la wax ha anta wara rabbuka xamat la ba nga xag ci yalla ma ngi faal moo ma ne bàyyi dafa xam nar bu mu doon yar ci kóosi ca ñu ndak ña nar bi nekk ma ngi deur ki day lol bëgg wérante lol di dem di dem di dem bam yag mo xam yàlla ndikee ne dërri ni ñëpp buur di di maa ngi waan bu yow doo jóg néeg ba ah lu ma ci dikkoo ko <laughs> man naa di yàlla bu amul soxla ci kenn boobu sama jaam la rek <laughs> maa ngi waan na ko wax bi dëgg sama xame bi <laughs> xamoon naa ko waaye xaaral bi boo si bi mooy si rek da nga si yaara ji bàyyi mu dikk di ko doxal seeru di ko doxal seeru di ko doxal seeru ba xësil ko ci kan mooy bàyyi nga xam ne lii yëngatu yëpp moo koy yëngat bokkaali mooma de bokkaali mooma de bu ci xaqiqa laa de wax bokkaali mooma de lii yëngatu yëpp moo koy yëngal li dal yëpp moo koy dalal waaye jëmm yëpp moom la hinna déglu ni mu ko waxee moom moo wax mu leer ana nafsu maay bakkan bii wal afaaku maay gox bii fa ay namaatu wóoloo rek fa sama waju laay ana nafsu wal afaaku ma ma raaytaha loo gis loo gis ndax xaa googu mu ngi jublu si nafsu mu ngi dellu ji ci nafsu ma raaytaha taraani loo gis mën na loo gis mën nga gis tara bi mën nga gis kon bàyyi mooy lépp kon li yëngatu moo ko yëngal waaye li dal moo ko dal loolu maqaamatul qutbaaniyatul musmaa la ya allah loolu mooy maqaama qutbaaniyatul musmaa xarakaat yeeg sakanaat yëpp xay sukkaanate allahu allah moom waa jooju moo fa nekk abdullah kooku mooy abdullah mooy ki nga xam ne kii ne muharatu umuri sak musakkinu duhóori moo nin tasarrafaati ci mboori mbiri yàlla yi moo xalifaat yàlla mu mel ni kon nag yàlla dafa xam fu mu suba ma jot ñun ci ma nekk ci jooju nag di maam Baay moom moo noppal nitam ñi moo la noppal ba nga xam ne boo dikkee ci moom du la am lum lay dig feneen Aboulis Bustaami yi dafa wax yàlla déeyaleeg yàlla ba mu déggee ca labam nga na ko yàlla lii ngay dégg jullit yi ba yomal xiyaamee jox ma ko fii man fii laa ko soxla jox ma ko fii nii laa ko soxla ñu ne ko waaye Aboulis Bustaami yow lu tax wax loolu Tayfur ibn Hinsa al-Kisani la tudd moom Aboodisir Bustami Tayfur ibn Hinsa al-Kisani loolu tudd ñu ko Aboodisir Bustami doom jum xam tuddee ko si moo tax ñu ko Aboodisir al-Bustami waaye Tayfur ibn Hinsa al-Kisani la tudd. Bustami mooy dëkk waay mu ne ko yàlla li nga dig nit ñi yomal qiyaama di julli bi jox ma ko fii nii ñu ne ko ma yow borom xam-xam yi ne ko ma yow li nga dox réeri ni mu ne leen àjjana joo xam ne ji nii ngaay bopp ba ñu lay dukkat nga tëdd ne walaas dee ñu sangara ba nga set lëmas la ay ay yére gas ba mu xóot na la fa malañ sax dina lekk xarmet bi màbb ci sa kaw mu yàq wi dem taar bi dem karaw yi tasaaroo yë jëm sofe sofe yi ba dara du des lu dul aj bu sën rek moo cay def ki nga xam ne moom mooy per bi nga xam mooy sa xaatu beneen yoon mu ne lii yëpp jasi nga dellu fi jógeete ñu sang la ba nga set gannaaw boo xamee jëm ñu sang la ba nga set solo la yére di la di yóbbu ci àjjana mu ne aajo àjjana dee doy na wax xam nga lu mu bëggoon a tontom wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani jooju Seexu Tijaan doon firi xam nga Seexu Tijaan bëri na aaya mu firi kam ayatin fasaraha yawman bi ma حصر من وثو من تقدم وكم حديث قامن مهناه بينه حتى بدا سناه وكم لهذا سيق من هبار حل بها مستسكر الأسارة وقد على ناس من الأقطاريات وهو مهبة الأسرار من آبس الطريق السنية وناس البرجة السنية تراه مثل الكهبة المدرفة يوما توافق مثل حلفة ينصر إلى أنواره سنة وأن جاهد المريد وكل من أتاه حب هادي yajiduhu kasayyin min sajjaad lu tax xaalisu insaani wa maabu rahma akrim rabbana fi umma dañ ko laaj kam ayatin fasaraha muy firi wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani ma ne benn jannatu bi mooy jannatul marifatu billahi benn jannatu bi mooy jannatul mahwa jannatul mahwa nag nit ñi dañ foog ne bu ñu demee kii fa am fële kër kële am fële kër kële am fële kër kële am déedéet fatama waaw mooy tàpp ji ji ñee tàpp ji ñun ñëpp te jëm yàlla de batama waa loolu laa fi xam ngeen ko wal aqlu mahwal boqoli xàll ba ci la ñuy denc ñàmbe ji magasin bi ci ni ñuy dajale ji li dugub ji waaye nit ñi jëm yàlla ji ci jëmmi nit ñi it te jëmmi yàlla ja lañ koy denc كم أبدا أناكم أول خلق نعيد وعدا علينا وإنا كنا فاعلين بل نقصف بالحق على الباطل فيدمقه في إساوة حاكم ولكم الويل لما تصفون كم أبدا أناكم نما لين تعملي كما بدأكم أول مرة تعادون وعدا علينا وإنا كنا فاعلين نولا كوي دفه hajona naxaan naxoon safara naxoon ndooy delloo rek delloo mbir rek delloo la rek delloo la ci sa yaay sa baay delloo ko ci yaayam ak baayam delloo ko ca aadama delloo ko ci suuf delloo suuf ci puuritam géej delloo puuritam géej ci duus delloo duus géej ci leer bi fi ndox mi ndox mi ñu delloo ko ci leer yonent bi leero yonent boobu moo baxee koo xoon ca yàlla moo tax annaa minallaahi والعالم كله ولو المؤمنون ولو المؤمنون كلهم مني لوك دا فاي جوخ بي بي تي واي انا هيفر بي سخ كي موم لا باك ميم كارلو ماكسي تي ديم يونت بي كوكا خام با فا داي موم دنگ فا جيس واو فيتا تاسا ماكسي ما كوم نيب نيب دنگ لين فك تي ديم يونت ñoom ñëpp ñoom ñëpp xamul lenn lu yàlla ba xamal te du ci jëme yonent bi la ko xamale jëme yonent bi yëpp yàllaa ko xamale ci boppam kon bu delloo lépp ci yonent bi luy des di rek mu jël yonent bi def ci boppam waaw bu boobaa sa àjjana ma daa nangu ñëpp rek bële du dem te ci la ko ku dem mu dem ku kenn du ko fa jox gannaaw di ko fa bàyyi safara yi ku dem mu diree ko ànd ngeen yéen ñëpp yéen a ànd ba ne ma tax ci biir jëm yàlla jëm yàlla na leen tajliyaatu kawar baa ngi nii ne bu ko defee yonte mu ne àjj na gent safara gent am dana gent bu ma ko wax ci hadis bu wét hadis nee na yom xiyaam yàlla dafa am ganale bu mooy ganale jullit yi feeñu boo xam ne bii nii dañuy fàtte neexaayu àjjana waaye bu ñu demee ba mu yàgg mu feeñee leen ca jalaalam nga ñoom dañuy jeex àjjana jeex àjjana gent lépp gent safara gent jëmmi yàlla ji rekk fi mu dee commencé ci yeneen tëj yàlla kon nag lam mu waxoon ne kama badaakum awwala maratin na'idu jooja mu waxoon mbir mi ku ci nekk fañ laa delloo ci sa cosaan ñuy delloo cosaan yi ba ci yonent bi jël yonent bi delloo ko ci cosaan boo xamul jannatul mahrifatu billahi jannatul mahwa boo demee fañ la placé doo sayi tan ɓe waɗanma placé to sobbuɗo to conseillé lañ laaj tan fekk boo nekkoon ci biir ya yaccaaral moo la tax ñu yóbbu la ca sobbuɗu ba góor nag góorgóorlu leen jéem a xam yàlla balaa ñoo dem saam dem ba diñ koy saam kon Seydi Bara am waaye place buñ koy waxee di fa xisaab nit du du fa fekk lu bokk ci bàyyi foofu bis bi ci di dajee nit ñi di daje di wax di coow dafa fekk mukk benn taalibe bàyyi an fam leen a fekk ñoom ñoom mu ngi leen di fekk nga na malikin ma ko tëdd jaaxaan ca digg yàlla te jëmmi naa fekk ñu toog kon nag nañ ko góor sëriñ bi ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne mi dikk nga waxal ñu ci yonantu bu baax bii nga xam ne mu fi indi alquran alquran jël xam ne ji nii kenn mënu koy sàpp kenn mënu koy yàq laa yaati min bayni yadayhi min xalfihi min hakiimin hamiid waaye ñu ngi bi nga xamee ne góor bu baax gi nga xam ne nii mooy xalifa bi yonent te wóor mooy xalifa bi muy Maam Baye Niass yebal la nga dikk ci suñu biir murabbi ak seexu murabbi ak seexu tarbiya ak seexu taalim ak seexu irsa ba pare nga dikk di wax ñun bis bii tey ndam la ci ñun ñu bokk ci bàyyi gis ngeen lii lañ jokkoo ak bàyyi mooy marifatu billaahi ku bokk ci moom wala nga jubsi ci moom te xamul loo ko xamal ne ku ko xam nax dala nañ soobu góorgóorlu jëm xam yàlla gannaaw buñ xamee yàlla itam bàyyi nee na boo demee ba fëgg sa dënn bi ne maari yàlla yaa ngi soog di tàmbali kon nañ góorgóorlu yéeg nañ góorgóorlu xam nañ góorgóorlu xàmmee nañ góorgóorlu xàmmee yonent kat moom moo wax ci hadis bi ne bu yomal xiyaamee yàlla bu feeñoo naa fee xëy danañ ko noxasu bi kam noxasu billahi min ka loolu du tax a mucc de noxasu billahi min ka foofa ña ko xamoon te gëm ko rek nga xam ne tajiliyaatu bu mu leen feeñee ak masar bu mu leen feeñoo rek danañ ko mën a xam ñooñu rek ñoo xam sens kon xam yàlla rek a xam njëriñ Cheikh Diagne nee na jànnataani boobu mooy. benn bi mooy jannatu maarifatu billaahi benn bi mooy jannatu mahwa jannatu mahwa mooy dem tàpp ca yàlla mu delloo la ca boppam nun la fa jëlee moom nga jaar ci tajëliyaat yi diggante bi nag nga xam martabaay tajëliyaat yi loolu mooy sa xam-xam loolu mooy sa njëriñ nga ko xam xam fa nga moo lay noppal noppal boobu moo lay dugal àjjana jii ñi jannatu maarifatu nga ba ca yàlla waaye bu loolu xamul waaye ruubu yàq day sonn wala waaye ruuxu yàgg naa sonn wala waaye ruuxu yàgg naa sonn wala inna woo yubbi woo yumeet woo wal kafoorul woo dóoru soo marsin ma jiidu anul li maa yëglu man ne waaye man ta ñàkk waaye waaye man ta ñàkk waaye taale bi bi nga xam ne bi boo topp koo xam ne tamit ko mu naan ko bu yomante yàlla bu sab yàlla maa lay <laughs> maa lay mu dee yàlla njëkk la fay jël séeréer ba na ko kon a dee fan fan fan fan may xaar fan may xaar moom fekk la fa ba ma la njëkk a dee fan laa lay dégg mu ko xam ma ko mu ne ko jox ma sama addiya ji ma def ma sama addiya ji ma def léegi léegi dafa wóoradi parce que tëjël yaatu yi daf yàlla nu ko neex laa tëjël yaatoo xam nga jëmm ja nekkoon ma màkka jógee ko ci xabroon dikk màkka gannaaw gi mu dikk laat dikkaatu Madinatu Munawwara a ga mu dëkk Fass gannaaw ga mu dëkk di Kaolack waaye léegi nag bu fekkee xaamam wala ko man te nga jëfaloon ko ca Màkka nag mu dikk nag Medina nga wéndi ko xaame ku la xamoon ku la yaay njool ko laajte faali ngoya ngi seeri war maam waay xaame ku nga xamoon ku la gétteeti na yaay njool xibra faala xamme min ka seeri war maam waay xam-xami baatin yi gën a sell ci jaan tijaan yan na yàlla jox la ciy toll yan na yàlla bégal say ndongo ci mbooti tijaan yan nañ sokkee xel mu baatin mbir yi na lool mbir yi leer na lool baay mooy Seexu Tijaan ñi nga sant yàlla ci loolu buñ ko nangaloo ci Seexu Tijaan déel ko nangul ci fi mu yàlla nañ ko nangul ci yeneen ndax ne wa marat na oxra fa taraw na xajaban bi siri sil xat mi imaaman mi jëbaa bu del see di bàyyi demin yaa nañ ko xam na bu del see di keneen yaa nañ ko xam na bu del si wut itam lim ñu xamal yaa nañ ko xam-xàmme bu ko defee ñu jëriñu sëriñ bi ñu ngi lay jëriñ ñu ngi lay wax jëriñ yëpp ñu ngi lay ñaanal fan moo gudd ak wéru yaram ak barke ak barke de ngee sant mbooloo mi te di leen wax góorgóorlu leen góorgóorlu leen góorgóorlu leen waa daayira bi góorgóorlu leen mbooloo mi góorgóorlu leen keneen ku fi mën a nekk béréb boo mën a nekk fexeel ba mu dikk toog fa béréb bu toog képp ku fa nekk da nga bu mu toog képp ku fa toog xool ko da nga am na ci ñoo xam ne ñu ne ci Seexu Tijaan te loolu bëri na loolu ci taalibe Seexu Tijaan rawatina taalibe Baay xaasi xaasi nga xam ne bu leen gisee bisu altine wala bisu àjjuma doo lakk mukk te wóor na ma ne romb na maqaama boobu ndax loolu bu fekkee suuf bi ngay joxe daa xam na ko bu yàgg te maqaamam bi xam na loolu kon ñu ngi leen seedal ne ñu gis ngir yàlla te di la siyaare ngir yàlla ñu ngi lay seedal ne gis ngir yàlla te di la siyaare ngir yàlla ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm mu laaj xalifa ñu ngi gërëm kenn xam ne moom lañ ko tuddee euh, benn téere boo xam ne ma yàlla euh, dama ba ma gën a nekk bu waaye euh, daal loolu daal boo xamante ne waaye daal moom bu fekkoon ne tàmbali sérieux bi gën a garaaw wilaayatul ngir moom atom yi bi gën garaaw lépp lu mu waxoon ci ibnu ma yàlla gis nañ nee na ko doo dee mukk taxawaloo ñetti cër ñetti bàmmeel ngaay mam te balaa ngaa dee danga génn ci lislaam mu daal di départ fii nii Mauritanie daal di dem France am cancer ci tànk ñu dagg ko suul mu ne lii nii benn armeel la toog tuuti loxo bi am cancer mu ñu jël ko daggate ngir suul mu ne lii de ñaari armeel la waaye maa ngay dem foog ne fii nii yéen a man kum fari na dee man maa koy kii daal di dem na di tuuti mu ñëwaat cancer bañ Seexu Tijaan nekk ci xolam bi mu dem ba mu ne yónnante bi fa koy xañ nañ ko génne ñu génne ko yóbbu ko ca toolam fu ñuy wax baaxul ludd ba mu demee mu dee foofu nga xam ne yontu mu ne fii muy buntu jaxanama foofu lañ ko mag ñi seen mbir kenn xam na moom waaw ndem ndem ndem ndem doomi maam alaaji yi ñoo mel noonu parce que nawatina nag maam alaaji naaw naka nag sët yi nag nga xam ne dafay doon na maam ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaanal di leen ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla def ñu ñuy nekk mursi ba pare itam nekk muri ba ñu mujj nekk mursi yàlla ñu nekk muri ba pare mujj nekk mursi mooy ñu nekk muri boo xam ñu ne dañuy toog di leen hotel di leen liggéeyal di liggéeyal bàyyi ci béy bi bu ko defee ngeen nangoo ñu liggéey bi ñu leen ñaanal xam nga yàlla ñu yàlla dimbale ci baax yi ñu ngi barakallah tabarakallah résultat ëllëg ñoom ak kon nañ fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam bés bu waxtu julli jotee ñu xam ne julli moom lépp mooy li mu gënoon fonk waaye dafa waxaat beneen secret ci gàmm mu ne booy ñëw ci gàmm di ko teewee ñu lay waxal jaar-jaari yonent bi ak jaar-jaar yi ñu àndoon moom mu ne dana tax nga fonk li tax mu ñëw boo ko fonkee da nga fonk lislaam te lislaam boo ko fonkee mu ne doo bàyyi julli ci waxtoom doo bàyyi koor doo bàyyi aj doo bàyyi asaka doo bàyyi digle lu baax doo bàyyi tere lu ban doo bàyyi loo digle wala nga tere ko nga bañ cee jiitu da nga cee jiitu kon li xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ñu baaxee ñun mënuñ dara amuñ dara xamuñ dara waaye ku mu bëgg a baaxee rek moo koy yàkkiwal li nga ne dana mën mën a jëriñ ay jaam ñu góorgóorlu bu baax benn bàyyi dafay wax ne benn nit mu ne ñaari laaf yi nga xam ne nit ki war na ko di naawee daa iman mooy laafu ragal ak yaakaar ndax ku amul ñaari laaf doo benn loxo du tàccu il faut mu am ñaar ñaar boobu sekkaram bi mooy mooy yàlla ak yonent bi mooy secret ñaar ñaar yu ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy secret ñaar yu ne kon gannaaw yonent bi yéen doon waxtaane gannaaw cheikh al islam li mu ñuy nampal yaree ñu ko mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci guddi gi ñaan yàlla yàlla nangu ko ñu nangu nangoo ñu jiitu nañ bëggante nañu yéene wante jàmm nañu demante di dikkante ku mën a dimbale sa morom ko dimbale muy góor muy jigéen képp koo xam ne mënoo dimbale sama morom fexeel ba bu ko ci dara ndax loolu itam dimbale la ko dimbale ko la kon da ngeen góor bu baax ci topp yàlla topp yonent ci li mu li mu tere jiital ci farata fonk lislaam yi nga xam ne lislaam bu te bokku ca muy julli ga muy koor ga muy aj muy asaka dañu wax ne julli moom ñetti mbir la mbir la moo xam ne moom ngay làmboo ak mbir ak loo xam ne danga koy def ak loo xam ne danga koy wax loolu ñetti yooyu mooy di taxawal julli li ngay def mooy lan jàpp ba set mooy dem ca jàkka ja wala nga jubloo xibla daal di kabbar loolu mooy euh, li ngay def bi nga kabaaree jàng faatiha ko saar rukkoo siggi defaat ko ba julli gi pare amma mbir yi nga xam ne nag tey dafay ànd ak yow te doo ko gis te keneen du ko gis mooy mbir yi nekk ci sa biir xol bi mooy sa xol bi dafa war a nekk lu teew ci jaamu yàlla gi ngay def ndax euh, rafetu dara nga taxawal a kabbar ne allahu akbar jàng faatiha ak saar te fekk yow sa xel mi sax nekkul ko loolu du teggin diggante jàmm bi ak borom booy julli da nga ciy teew moo tax ñu ne yi ñuy wax ak def moom danga koy bàyyi ba pare ci julli gi waaye mbir yi nga xam ne moom ngay jiital du demee ni ki sa gëm yàlla du demee ni ki sa yéene ji nga def pour julli yooyu moom na des ak yow waxtu nekk nga di ko xalaat ba ba julli waat su ko defee da nga mën a defaat julli boobu kon nañ góorgóorlu ci loolu te ñu yàlla yàlla yàlla defal ñu mboolem yombal ci suñuy mbiri zahir ak suñu mbiri baatin baatin bi moom yombal gi mooy lim ñu may ñu mën koo tudd parce que yàlla ku ko neexut du la tudd la boppam ku ko tudd rek daf laa bëgg daf yéene jàmm waaye itam ñun itam nañ fexe ba ki ñuy tudd biñ koy tudd ñi teew ci tuddukaay ba dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci borom xam-xam di ko laaj masala ne ko dama am masala moo lay laaj mu ne ko nan la mu ne ko ku jamut ci julli bu wàññee lu muy def mu ne ko li may laaj ci seen atte yéen la wala suñu atte ñun mu ne ko suñu atte ñun parce que euh, euh, ñun fuqahaa yi am nañu atte mu ne ko ku wàññi sujjoot ñaari rakka bala ngaa sëlmal ku yokk sujjoot ñaari rakka gannaaw ba sëlmale mu ne ko noonu la de yéen da ngeen am atte bu dul boobu mu ne ko waaw mu ne ko li seen atte mu ne suñu atte mooy ku nekk ci biir julli taxaw ci kanam yàlla ku day ni yàlla mu jox la audience nga taxaw ci kanamam fàtte ko bay génne sa xel mi ci loola bay xalaat la loolu bay yow dañ laa war a yar dañ laa war a teg coono moo tax bëri na koo xam ne muy ngi julli te julli gi du ko awale yoon nañ jéem a teew ci julli benn waaye nee man am naa fukki at ak juróom di jànkuwanteeg julli pour fee teew ci ma julli mu tëma waaye bi ma ko bi ma ca teewee ba pare am naa ñaar fukki at yoo xam ne julli bànneex lay doon ci man am na benn nitu yàlla boo xam ne dem na ci julli ba nga xam ne بجول لي سعد دفاي سمو سفر يو يو بس الجلد لا نعم، بان بما أم تجعل القرآن بما الله أكبر بما أو تي أم تدمي يجيني من يتعال تكرم برام بأم سر كن جولي متعين من الصلاة إما الدين ومن هدمها فقد هدم الدين من جولي ما كانوا لمغلي الدين كودانا دانا الدين ñu ngi sant Camara wax naa ko ci Sénégal bi ma demee ne naa am na taalibe foofa bu ñuy wax Camara lancé ne leen défi yéen mboolem taalibe bàyyi ak fu ngeen mën di nekk parce que lim def lim réalisé rajo bi nga xam ne réalisé na ko te moom amul xaalis pour créer rajo amul lu may salaire am wala liggéeyam lam ci jëlee nga xam ne daf ko war a dundee moom njabootam mu fexe ba kon dindi ca ba créer benn luye benn waxtu ci rajo bi ñu ciy wax mbiram bàyyi di ci wax mbiram fayda bi di ci wax mbiram tariqa bi di boole nit ñi ma eh, jëf ji suñ ko itte woon ca Sénégal day am suñu rajo boobu lu tax duñ essayé rajo yi fay am noonu ñu lu lu fa ay waxtu daayira bu ko itte woon ne man balaa gàmmu déwén dana am ci rajo Sud euh, FM wala ci rajo nangam wala ci rajo nangam ay waxtu su ko defee bu kii defee kii def ko kii def ko bu yàggee la ñuy la euh, euh, génn ci rajo bi mën naa créer rajo naka noonu la télévision yëf yi yëpp ñu ci suñu loxo organisation la laaj ak itam gëm li ngay def parce que nit ki buy def lu mu gëmut du ci sawar waaye ku ne xam na ne ku ñu wax ne yow taalibe baay nga di nga gëm ne man taalibe baay dëgg la كون واخنا كاي ليغي الباي انا اباي لي يارو ليغي اما ني واخنا باي يارو ليغي باي يو مي ني واخ كاي ليغي الباي يو سبب تي لن لاي او باسكو يو باي مون لاكو ليغي يال دار باي دي كول ليغي يال مو سخلا ني فاي كو كون نين غور سري ال يونافو نانغا خير نيني ني ماي ليغي خدمه ndax len dama bañ yowmal qiyaamati bu ñëpp gisee ne mbir mi sama loxo la nekk maa koy séddale am ñu rëccu ne bu ma yóbboon bu ko nag sama benn taalibe wax bu ma yóbboon kon nag mbir yaa ngi noonu sànq Muxtaar Ka wax na ko ne di bàyyi di wax ne waman yuhibbuni waman yaraani waaye am na bayt yoo xam ne bàyyi wax na ko ci ruuxul adab wa kenn laaju ko احنا بقدر ما تحبه تنال امداده فالقوم هذا قالوا ولا سمبك يلم دايتي نيوم رك نون سي مدد دايتي يوم من غاني لول لا يوخ لتاخ لا خون غدل يولو واخ يقول الله جي واخ موم تمام خالو شاف كو لاج لكن من صاحبني مراد لذاك نالو كل ما اراد من كو عندك من كنت tànneefu yàlla la kuñ sopp la ku yàlla sopp la moo tax ñu am lépp luñ bëgg kon yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla wattu wattu suñ diine wattu suñ tariqa jox ñu ndam ci lépp loo xam ne ñu ciy dugg yaatal wërsëg yi maye këyit yi yombal liggéey bi yombal wërsëg yi yàlla mën na ko yàlla na ko def wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin

ما أغنى وما عبدا تطرد مزاياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقل تيبي am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey fay du baay bi si di barahama OTTV baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm